jënd naa ci yéen jullit ñi seen seen ajjana li ma koy jënde mooy seeni alal ak seeni bakkan foofu dafa dal di wax bu wér lay maye ajjana am na leneen nit lu ne ci alxuraan loo xam ne sunu boroom wax na ne dana maya ajjana mooy nga fekk nitug yàlla kuy liggéeyal yàlla am lu mënta leeral ci boppam ndax boppam da koy jege nga jóge fële ca àll ba te mooy Cheikh Ibra Fall rajulun min aqsal madinati benn waay bu jógee ca àll ba mooy seex Ibra Fall jóge fale dikk ñu umpale sëñ Touba lool te mënta wax boppam mu ne kii kenn warut a toog ak moom kii lees liggéey des ko koo war a jox kii ku ne dalaa war a gënal sa bopp loolee ka ko waxoon ci Seyduna Muusa bañ ko ñettamalee benn waaye jóge fële ne leen da war a déglu li muy wax li muy wax njëriñam nekku ci benn intérêt nekku ci te itam da ngeen a war lim leen wax ngeen gëm ko su fekkee wax na dëgg li mu leen dig da ngeen ko gis su fekkee ne dafa fenit fen wa du leen wàññi dara moog moom moog moom loolee la ko ci yàlla fayee da ko ne demal tàbbi na moo tax waa ji ne yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramina jéggalewu ko ay julli jéggalewu ko leneen da koo jéggale leeral mbirum nit ku baax sunna bi nuy wax itam li gën a wér ci sunna yonent bi mooy yi may bëggalim am na woykat wu tënk li yonent bi daa def daf ne xalaba xandaqa bana wasalaxa raqaa xaata xamma baytan baxbaxa yii yëpp yonent bi def na ko te gisaguma kenn ku bëgg a doxal sunna ba jóg jéem caa roy dara yonent bi rattaan na ay gat gasaan na ay pax tabaxaan na feesaan na ay gat daax na ay sér ñaw na ay sér bale na ay kër nax na ay doom lu ci ne métier woon na ko ñu daa ko ca fay te gisaguma kenn ku bëgg a dundal sunna ba tax nga ne loola laa yaa yaa ngi koy def dund lim dundoon ci ay atit kenn néewul yàlla may ma ma dund lu lu lu toll ne lim dundoon ndax ku ne xeeb nga ak dundam kon roy sunna moom lu ñuy wax la waaye euh, euh, euh, ku ko doon roy roy ko ci métier yi roy ko ca ca lam dundoon ci àddina te gisaguma ku ne yow sa maa ngi la ñaan bu ma dund lu yonent bi dundoon loolu moo wér waaw kon noo ngi sant sëriñ tubaa moom gindi nanu teg nanu ci yoon tegtalu nu da daf ne dugg leen ma yóbbu leen sëriñ tubaa di su ko rey di su ko topp da ngay dugg ci li mu ne mu yóbbaale la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Serigne bi dama lay nuyu di la ziyaara ziyaara boobu ak nuyoo boobu ma jaarale ko ci yow mu jàll ba ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sama waajur wu tedd woowu di sëriñ Mouhamadul Fadil di ci ziyaara di ci nuyu mboolem taalibay murid yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañu fii bu fekkee ne dañoo bëgg a waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moo ko war a tënk moo di bis bi di kasu rajab ak borom bis bi di serigne fadlullah fadlullah dafa rëy ndax alquran lu ne dako wax lu ne mu digle ko lu ne mu tere ko lu ne mu digge ko waye dafa muj wax ne li am jeriñ addina ak alaxira moo di wa rahmatuhu qul qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafraxu huwa xayrun mimma yajmaun moo tax sunu waajur wu tedd bi bi mu feeñee ñii takki gàllaaj ñii di ñaan sëriñ bi ne déedéet wa anna alfadla bi yadillahi yuutihi man yasha kenn du ko takkal téer yàlla moo ko yoral boppam kon loolu dafa mat a xam loolu jeexital ci jëmmam ju tedd ja léppam di fadlullahi wa rahmatuhu duma ci delluwaat ndax ñu yeesu ñëpp wax nañ ko léppam di ngëneel léppam di yërmande loolu mooy biddam mooy tabiatum sëriñ Tuubaa it tànn ko mu feeñ ci weer wii nga xam ni sëriñ Tuubaa nee na kazu rajabin akramani kazu rajab daf maa teral mu wax ci lu bari kazu rajab nee na ci lañ ko mayee alxuraan te sëriñ Tuubaa nee na alxuraan moo koy gunge ba àjjana sëriñ tubaa nee na ko yow téerab yàlla bi ñu ma may ci kasu rajab yow yaay sama docteur docteur du ma faj nee na ko teral nga ma musal nga ma bégal nga ma wattu nga ma aar nga ma wax na ne it ci kasu rajab ji ak ci màggug alxuraan gi ñu ko ci may sunu boroom may na ko ci ak def sëriñ Tuubaa dootu fi jógati wa jaalna zurriyatahu humul baaqina loolu yàgg na fi waaye moo ko mujjee Sëriñ Tuubaa wax ne danañu dem ba jamono fépp takk waaye Tuubaa du takk li may wax histoire da ko dëggal at yële ñu weesu am na ay dit yori ngànnaay nangu kaaba gi lu yàgg ci ñimitutaay waxtu wii may wax ak yéen baytul muqaddas gii ñuy waxtaane la fa xew ñun ñëpp ko yëgandoo fi mu toll tàkk na bérébu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci bokkut te sëñ Tuba moo ne wa zid xifta rawdatihi dafa ñaan ne sunu borom yal na nga wattu bérébu yonent bi mm-hmm. loolaa pa mm-hmm. lu wér laa xam ci li may wax kon nag ñu sant yàlla bu baax gërëm yàlla bu baax gërëm sëriñ Touba ci lii nga xam ne defal nañu ko kon nag waxtaan ci sunu waajuru tedd yi di sëriñ Fadlullahi mëni su koo jeexal noo ngi dellu di la ziyaara di la nuyu di ziyaara sunu bokk yëpp di nuyu bokki jullit yëpp ak mboolem ñi teew wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Cheikh sama xarit sama mbokk ci ndey sama mbokk ci baay di sama xarit boo xam ne li des ci sama dund su ma la dee jéem a fay li nga ma euh, ji ci teraanga duma ko mën xarit gu yàgg laa am ak yow booba maa ngi nekk njaareem di gon di ay ñu di gone lu ma masaa xewle yaa fay jëkk mujj fa bi nga nekkee Touba loo masaa xewle maa fay jëkk mujj fa waaye yaa ma gën ndax yow boo masaa ñëw ci sama xew man damay lijjanti sama xew yow nag danga ma naan lijjantil ma xew wi yaa ma gën ndax Moustapha Salih mi ngi dàggu ci sa ëtt te Cheikh Mbakim sëñ sooñ bu dagguwul ci sama ëtt maye naa say doom ba tey ba yóbbu leen fa ma leen yóbbu soog laa yëgal ñama ko may nga far ma ne deel ma ne ñëpp kon mënuma laa fay waaye sunu waajur wu tedd ba nga ko niru mënumaa waxtaan ci moom moo tax ren laa jëkk a waxtaan ci bisam ndax mënuma ko moom dama koy dund dama koo xam moom mooy Serigne Touba donnul Serigne Touba dafa doon sëriñ Touba sëñ tubaa da koo téye waxtu suuba ba nodduk tisbaar sotti ko ci kawam lépp sëñ tubaa ko ko xamal te booba dalagut jàng daf koo téye lam ko jëkk defal mooy tàngalal ko attaaye mu naan mu ne ko xam nga lu ma ci jubloo mu ne ko déedéet mu ne ko dama bëgg nga xam tiraanga lu ne tekki na ko sëñ Tuubaa bi su keroog wan na ko léppam wan na ko ni muy binde wan ko ni muy jànge alxuraan sëñ Issa Dienne sax ñëw nañ yëgal ko sëñ Touba mu ne na agsi sëñ Soy bu xam ni na ko te booba dellugul jàng mu nekk moom ba yàgg mu ne ko demal fab kees gee fekk ay xalima ak i daa ñoo ca nekk sëñ Soy bu jóg jëm ca fab ko sëñ Touba ne ko tegaatal fi suuf mu teg ko fi suuf mu ne ko deel wax bisimilah yi soog di fab te booy tagati dara del wax bisimilah mu fab ko topp ci moom sëñ Touba di dem di waaxu sëñ sooy bu di dox jéego yu xat sëñ Tuubaa raw ko mu réer ci biir kees yi sëñ bi dëppaat gis ko na ko waaxu mu topp ci moom ñu dem ba ci néeg sëñ bi toog ne ko teg fi mu teg mu ne ko néew ma la woon looy waxati dee la wax bisimilah fobal mu yëkkati mu ne ko waxal bisimilah mu ne bisimilah mu teg moom moom te lu mu ko wax da koy da koy wax dénk ko dénk ko sëñ tubaa du wax dégg nga dénk ko lay wax yooyu yëpp mu fàttali ko ci sëñ Tuubaa di ko di ko ko xam waxtu yi muy nuyoog sëñ Issa Dieng sëñ sooy bu nee na mu ngi laxasu ci gannaaw sëriñ bi di fa ci gannaawam am na ñoo xam ne sëriñ Touba dana ñii sama doom lañ sëñ sooy bu nag moom dana kii sama bàyyee mu wax ne am na fu sëriñ bi toogee di bind muy xool cëri sëriñ bi nee na mu rafet ci moom lool sam sëriñ bi ba gisatu tànki sëriñ bi muy koo xam ne yontu yàlla Suwaybu mi ko Serigne Touba tudde sëñ Touba lu mu def du neen moo tax sëriñ bu Serigne Suwaybu wala taxsibanna alladina qutilu fi am amwaata mi ngi dund dund Seydina Suwaybu dafa am lu ko tax a dem dafa am lu mu bañ a fekke mu dem loolu am loolu nag Serigne Touba moo ni mel damay jaaxal bu fekkee ne nangu nañ ku la jàngal école ku ne nga ne sama sëriñ ku la faj ku ne nga ne moo ma mën a moo ma may ak wér ku la jàngal métier ku ne nga ne moo ma xetti bi te nag bu ne sëñ tuubaa yàlla sëñ Touba ñu ne danoo bokkaale bokkaaliwun sëñ Touba tawxiid la jëkk a def ci nun tarbiyatu mooy fi ñuy jàngale nit imaanu billaah loolu la jëkk a def ci nun mu wëlbatiku tarqiyanu mooy fi ñuy defee ci ni lislaam moo xam na muy jaamoo yàlla mu dellu def ci noonu lixsaan ndax boo gëmee yàlla di jàmm yàlla te njistal tax ak bëgg dina yàlla du ko nangu mu defar nu ba nga xam ne lu nu def yàllaa tax kon noonu ay muminuuna muslimuuna muhsinuuna lanu du nu ay mushrikuuna waaye nag yàlla diw moom mi ngi ci alxuraan ndax sunu borom moo wax ci alxuraan ne su ngeen doon wax ne li nu yàlla ak yonent bi jox doy nanu danaa leen dolli yàlla ak yonent bi lim nu jox doy noonu kon day mel ne yàlla daa joxe yonent bi joxe fun teg sëñ Tuubaa yàllaa tax foofu weesu nañ ko yontu yàlla Isa sunu boroom daf ne bu àllaaxira danaa ko wax ne ko ndax yow ñii di wax ne Maryama yàlla la yow it yàlla nga ndax yaa leen ko waxoon ci àddina yontu yàlla Isa ne ko man de la ma digaloon laa leen wax dama leen ne yàlla kenn la na ngeen ko jaamu ba may dundit loolu laa leen daa wax bi ma fa jëlee nag lañ wax sama ganaaw sama yoon ci su la neexee nga mbugal leen su la neexee nga bàyyi leen kon kooku dafa défendre boppam aw nitam xeebu ma ko de dama damay leeral leem Sëriñ Tuubaa nag moom du ñu waxanteeg yàlla défendrul boppam défendrul it ay murit képp jullit ñëpp la défendre def na yow suma borom maa ngi lay ñaan fii ci àddina nga may jullit ñëpp jàmm boo laaxira itam li ñuy wax njaqare ak tiitaange nga nga xajjil leen ko ba nga xam ne laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun tey dama bëgg bakkaar yu bari yi ñuy def bu leen ko jàppee ndax ban bi nga leen bindee ban bi mooy sobe moo tax ñuy bakkaaru waaye roo gi nga jëlee ci sa bopp moom laab na ci bokkaaliwu la sëñ Abdou Samad dama xamut gan xasida la dafa am ku ne shakhsun takannafahu suraya wassara fal jismu kuwina min xasiisi alqirmidi wa ruuxu كان نشوؤه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتسعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد loolu سين تبا Tuubaa wax dafa am ku ne nit yàlla da koo bind ci yaar ban bu jóge ci suuf bu ko defee nag ban bi moom lim lu lu ñaaw rek lay def ndax day dellu ci cosaanam roo gi di yëkkatiku di def lu baax rek ndax bëgg a dellu ci boroomam su ko defee nit ki nag ne ci diggante bi lee di ko ñoddi lii di ko ñoddi moo tax Sëriñ Tuubaa loolu la wax sunu borom ne ko bu leen jàppee seen bakkaar yi ndax yaa leen liggéeyee ni nga xam ne euh, ban ak suuf bi mooy indi loolu waaye bokkaali wuñ la kon nag mooy gi nga xam ne buñ la ko defee du la wàññi dara bu leen ko jàppee njëgal gi nga xam ne boo ko dencee kenn du xam ne am nga ko may leen ko te e, sunu borom tabaraka wa taala sayidina isa bi mu layalee boppam la ko ca yàlla tegal de ko kon nag yaag sëw nit ginnaaw xam naa ne noonu rek la demee jéggal naa leen te dëggin di tàbbi àjjana kon nag Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne e, ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñëpp la aar layal leen yaakaar naa ne fu ñu fayekee danañ ko fay dëkkam bii di Tuubaa itam dafa am téré bu ñu wax al bidaya wa nihaya abul fida ibn kathir moko def al juzu thani fas bi nga xamné juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett la li bay wax kelane la yonte yàlla isa dafa laaj yàlla ne ko luy tuba mu ne ko garab la go xamné mako jëmbatal sama bop léppam aljana la xetam day melni misk càkkaam mel ne junjeer ko ca naan dootoo marati mukk eh, yont yàlla insaan ne ko damaa bëgg nga nandal mu ci mu ne ko mënta nekk dafa am yonnant boo xam ne kenn du ko ca jëkka naan am waa këram ñoo xam kenn du leen jëkka naan yow nag duma la rey dama lay yéegal fi man su ma demee ba ci mujjub jamono ma delloo si la addina ndax nga dajeeg lenn ci waa kër uh, yonnant boobu ma lay wax su boobaa da nga gis ci ñoom kiimaan da nga leen dimbali ci noonu yàlla ya ñuy dajal ci jamono nga euh, xeex ba ñuy xeex ñoom waxtu woowu nag bu boobaa ñooña da leen ndax dañoo weesu foofu tayit yonent du dikki seen gannaaw gannaaw gannaaw seenub yonent mu ne ko dama bëgg nga mosal ma tuuti ci ñooñ mu ne ko de xeet lañu woo xam ne seen kilifa Ahmadu la tudd ñu am yar la ñuy doon ñu teey la ñuy doon waaye man yàlla damaa yëkkati seeni daraja ba dañoo yem ak anbiya yi ay ay ay daraja danaa leen tàbbal àjjana ndax dañoo fonk di laa ilaha illa dañ koo fonk ca laa leen di tàbbalee àjjana boo demee àjjana ñoo cay gën a bari loolu mooy noonu mu am nag loo xam ne danoo waral delloo sëriñ Serigne Touba njukkal ndax dafa am lum nu defal dafa wax ne yéen sama ñoñ bu leen jàq bu leen tiit ci àddina ci àllaaxira danaa leen defal loo xam ne buur du leen gën a rafet lu muy sol buur du leen gën a neex lu muy lekk buur du leen gën a rafet fu muy dëkk te kuy rey buur teggi leen loolu nag dafa am njukka ko war a delloo mooy bañ koo booñe booleeg dara dara dara dara dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi lay nuyu nuyoo boo xam ne dama ci fàttaliwaale li nga xam ne moo jaar sama diggante ak yow te muy lu yàgg ba ay gone bokk nañu ci benn lal at loolu defe naa lu rëy la bokk nañu ci benn néeg ñaari at bokk di jàngi di bokk lu nuy bëgg di bokk lu nuy bañ lenn rek laa xam ne metti woon na mooy boole woon nga ci bi ma jàngal rëbb te man damaa ragal fetal maa ngi fàttaliku ñaari ballaa ma sa taal te ba nga may jàngal fetal benn bi dama bëggoon a xam bal bi nu muy demee jéem moo woon a diir sax li may diir bi ci des nag ma yàlla dogal ma jëm waaye ca la jëkke ca la mujj sama diggante ak yow du dara lu dul diggante sunu ñaari maam yi Cheikh Ibra Fati ak Serigne Touba diggante boobu nga xam ni ba wëllëre dalee am ci àddina ba tey benn wëllëre ak benn ànd bu ma sa jege loolu mësta am ba ko sunu borom ne sana suddu adudaka bi akhika te loolu waxoon nañu ko sayidina Moussa wante sëriñ Ibra Fati ak sëriñ Touba seen diggante benn diggante mus mus musta mel noonu royukaay la dafa gëm sëriñ Touba bëgg ko ragal ko doyloo ko musu koo diingat musta wer werante bi nga xamee ne sëriñ bi yëg na ne tubaab yi ñu ngi koy woo te fekk booba ñiy rambaaj ñoo fexe ba convocation yi ñu yónnee sëriñ bi ñu denc ko bi ko sëriñ bi xel na xelmatee mu ne ko demal laaj ba xam loolu nu mu dem am ci bokk yi ak taalibe yi ñu ko xelal moom maam Thierno ne ko fi nga jëm day ndar la dañoo doon niti àddina fexe woon ba am col gu rafet goo xam ne dana dëppook ñoom day baaxoon na ci ndekete sëriñ baa ngi koy yëg ci mu toog bi mu lijjantee ne moom maam na bëggut dara waaye fexe na ba àbb bi ko sëriñ bi yëgee mu woo ko mu ñëw mu ne ko yëg naa li ngay fexe waaye boo demee sa col gii nga daa nekkeek man muy ay sagar boo demee sol ko ci laa gis tàggat gi may tàggat tubaab te ni ko sëriñ Touba waxe woon ba mu àggee moom jéemu te def dara dafa jawale rek kër gouverneur ci bëccëg bi mu àggee mu taxaw ci bunt bi fekk gouverneur une jot na muy signé ay courrier volontaire am dafa féete bunt bi mu séen garde bi di waxante ak maam Thierno ñu xëccoo mu woo garde bi mu ñëw mu ne ko kooku kumu mu ne ko kooku de dafa wax ne mooy ci sëriñ Touba. ginnaaw nga xam ne nag ñoom booba mbirum sëriñ bi rëy na ci ñoom mu daldi ko ne wutal ko fu mu nekk bu ma gontee woo ko yàqkat yi dikk jéem a def lu ne waaye gouverneur def leen ne kii ak ak sagaram yi mu sol lu mu wax dëgg la ndax gisuma lu muy ragalati ci àddina wala lu muy dabooti ci àddina kon lu mu wax dëgg la nga gis li sëriñ bi ne woon sagar yi ci laa def tàgg bi bu sol woon ba jekk rek lu mu wax duñ ko gëm mu deseti leneen te loolu des koo war a wax muy soxna Fatou Issa diggam ak sëñ Touba man de li ma xam ci histoire Serigne Touba mooy ki gën a gëm sëñ Touba ci àddina mooy soxna Fatou Issa Diop. na mu bëggee sëriñ bi na mu jàppe sëriñ bi loolu lépp ci ngëm gi lay wax sëriñ bi dafa am juróomi at yoo xam ne kenn xamul ci moom dara tubaab yi bind benn lettre def ca ne sëriñ bi nekkatul ci àddina yónnee ko Maam Mor fekk booba maam Thierno mi ngi ci daruma nan fi ko Serigne Touba bay euh, serigne Mor di bàggante diggante Mbacke ak daruma nan fekk soxna Fatou isa maga bi kuyti kuyti yi bare mu ñew ne maam Thierno man de dama gis fan yi yeb ngeen di gisee ke bàyyi te man xawma li ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de waye sa xarit ba sa doom ja moom lañ wax ne moo fi nekkatu te it néexut ndax monsieur yóbbu kenn ñoom tubaab yi mu dellu siwaat te it gune dafa am fu mu yem kon warees naa mën a gëm booba loola waaye ba mu des soxna Fatou ñu bari ci kilifa yi ngeen di dégg gëmoon nañu xibaar ba bay tàmbalee sàkk pexe ñii teg nañ seen jë seeni moroom waññi leen ku ne xalaat li nga xalaat mu ne maam Thierno fii ne gëm nga xibaar bi mu ne ko waaw mu ne ko bett nga ma de sa mag jooju nga xam ne si buru si ko daa dal daf koo dal bis te si buru soosu ci la Serigne Touba taalifi woon matlabu chifa yi bi muy def matlabu chifa yi nite ne fi wetam muy wax kooka di bind waaye booba sëriñ bi tawat bi metti na ba mënatuta yor xalima ak daal moo tax mu naan wa ashtaki ilayhi ma min addarar qad massani حتى أراني محتضر booba nee na mi ngi ci waa a génn bi nee na mu wax ma ni ma toggal ma laaxub gerte soxna Fatou Issa mooy wax bi mu ko defaralee sëriñ bi sëriñ bi bi mu ci jëfandikoo amuk tal amuk dal tane nee na mu ne ma waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko man bàmmeel laa ragal mu ne ma xanaa su ma la ci dugalalee sama bopp danga ca ñeme mu ne ko waaw mu ne ko waaw déeguma di xoole te moom lu mu wax def ko ñu naan leen génn na àddina ngeen di ko gëm waxuñu dëgg mu ne ko te boo ko sàkkoo gis ci guddi tey gi danga ko keroog ña fekk jataay ba wax nañu ne dégg nañu maam Thierno di wax ak sëriñ bi loolee sëriñ Touba nekk Gabon ba ñibbi si 1902 ñu exilé ko Mauritanie ba 1907 mu soog a dem Thiéyène sëriñ bi soog a yónnee woolu soxna Fatou Issa ba mu déggee woote bi daf ne damay faatu ji rek la mu waxoon la bëgga a def bi mu dikkee yàlla dogal la xew-xew sëriñ bi moo jógal boppam toppatoo bi nga xamee ne dugal nañu ko ci biir sëriñ bi dane na ma ñëpp dàng moox soxna si moox soxna si mu ne leen su ngeen séenee ma yëkkati sama loxo ngeen dellu si waat mu def la mu waxoon loola soboon kon nag xibaar bi ñëpp gëm ka ko gëmut moo gën a gëm sëñ Tuuba waaw foofu laa ko loolu mooy maam Thierno Birahim sunu maam sunu royukaay ak soxna su tedd soosu di soxna Faati Isa Jóob ñu ñëw ci Serigne Touba Serigne Touba nag buñ ci waxtaan دون وقتان في الإسلام نوعي وقتان تي لموت سرين توبا أنين في دق وإلا يما سرين توبا نيب لولا دون تبا نخ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجه والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سرين توبا نينا لب لو يالا سانتانا تيما ديكو ديفان دو جيجين مان دوما يام فوفا يوي ما ليب غور جيجين فيام يام تي الاسلام فوفي نك لا سرين توبا تاغو اك نيت ني نيو سي فيغا رجالون lo xamne ne ko sunu borom di wax danaan rijalun fofu la seigne touba ni la tulhihim tijaratun wala bayun an dhikrillah dicrillah من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه المجاهدون في سبيل الله dafa am lu jigen munu gone munu fofu fa la seigne touba tambali di liggéeyal yàlla murid yi itam tanug yàlla lañ ci bir l'islam ndax jiw ñu koy tànne ci gerte gi ñu xolli waaye buuse dafa ne xar ne fa lu dul sax ne fa lépp ne fa waaye jiw nag jiw yàlla ci lislaam ñooy ñooy ñooy murid yi moo tax mu ne man yartadid minkum an diinihi fa sawfa yati llahu bi qawmin yuxibuhum wa yuxibuuna أذلة ala almuminina أعزة ala alkafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لولو نك ليكوي ماي موي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لولو موي طالبي dañuy nit ñu bëgg yàlla yàlla bëgg leen yàlla jaral leen lu ne lu ne ñu di ko def te yàlla tax te duñ ca ragal coow duñ ca ragal mbam ndax murit du ragal coow coow koy yëgg fu coow amee yoon wi yokk kon loolu mooy Sëriñ Tuuba loolu mooy taalibe yi ñi nga xam ne nag dañu leen di tudd di tudd Sëriñ Tuuba dañoo war waxtu wu nekk di ko delloo njukkal amna lo xamne day xel war na ci dem nga am lépp ba ku ko mën am day ñëw ñaan la ko yalwaan la ko nga sarax ko ci nga sarax nit mu duy ci ay batom won la gannaaw nga gis muy fess nga fàtte ne yaa ko ko sarax toppaat di ko yalwaanaat ci la ko sarax won war nañ koy wattandiku wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu amul benn bëgg-bëgg ولا بن يتي ولا بن خنم تيف ولا لن جن جل كل انت